bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ko sunu mbokk Seneinfo ñëw di ànd ak yéen ci sunuy émission yu am solo yi tabarakallahu ñu ngi leen di jaajëfal ñu fas yéen ànd ak ci question yi nga xam ne mbokk yi wàccoon nañ ko fi di ci laaj ko defee lancé waale it ne leen képp koo xam ne rek am nga question incha allah boo ko defee ci commentaire bi danañ ci tontu suñ kéemtalaay kàttan mbokk mi dafay laaj mu ne dafa woor ba bëccëgu weeru koor mu juum lekk wala mu juum naan kooku yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci hadis boo demee ci sahihayn di nga ko fa fekk mu ne képp koo xam ne dafa fàtte ci bëcëgu weeru koor moo xam dafa lekk wala mu naan su boobaa kooku na continuer kooram bu def falaa qadaa alayhi wala du fay bis boobu waaye kafaara duñ ko du ko ci fekk kon loolu mooy li nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi wax boo demee ci xaakim tamit dina ci loolu tabaarakallahu kon ñu xamee ko noonu waaye nag Cissé Cissé bi na mooy too dem def lu ko ñëw taxaw ne dama jub beneen bi mu ne lan mooy atte ci koo xam ne dafa yoroon règle dem ba fajar gi ñu war a umee weeru koor mu gis ne set na ndax mun na woor wala déet ndax sangoogut loolu la doon laaj tabaarakallahu kooku liñ koy tontu mooy ne mën naa woor ndax sangu set ak yéene woor jotewuñ dara su boobaa kooku li ko war rek mooy na yéene laata fajar laata ñuy salaatu na yéene fas yéene woor weeru koor su ma nee sangu heure baax na su ko mënul timit waaye na yéene rek xam ne mu ci weeru koor léegi te war na mu woor ko su ko defee bu ko seetee mu sangu walilahi alhamdu wa shukru kooku loolu moo la moom lañ ci doon tontu beneen bi muy wax ci ki nga xam ne dafa waroon a fay weeru koor mais moom dafa saggan toog toog fayul ko ba beneen weeru koor arrivé mu doon laajte kooku lan lay def ndax day fay jour yi amoon ci weeru koor ta te fayagu wala ndax day woor weeru koor bi ak lan ko ci fekk après lu mel noonu comme dal boroom xam-xam yi liñ ci jàngalee mooy ne da ngay woor weeru koor wi nga xam ne moo teew ba pare su jeexee nga soog a fay nag li nga xam ne mooy fan yi nga amee woon te soo koy fay dañ la ci daan mooy da ngay fexe da ngay jénne li nga xam ne moo la ñuy tuddee mudd mooy lele bu dee ñetti fan la xamal ne fan boo fay bu nekk da ngay jénnee mudd lele ko mooy à peu près lu tolloog mille francs nga daal di ko jox koo xamante ni tey dana ko mën a jëfandikoo koo xam ne ajowoo na ko kon kooku loolu mooy li nga xam ne moo ko war walilahi alhamdu wa shukr laaj bu mujj bi mooy dafay laaj ndax ki nga xam ne moom daal dafa teel a nelaw ba bët set mu soog a yëg ne weer wi feeñ na ndax kooku mun na continuer wooram wala déedéet loolu lay laaj walilahi alhamdu wa shukru loolu mbokk yi kum dal bis boobu dangay jàpp waaye sa koor mënul caa wér ndax wax nañ léegi ci waxtaan wiñ jugee dafa bokk ci charte yi wéral koor mooy yéene yéene ci la bokk te kooku bi muy nelaw booba yéene wut beneen bi it mooy bi muy nelaw boobu moom amagul xibaar ndax weer wi feeñ na wala feeñagut moo tax kooku loolu su ko arrivé li ko war rek mooy jàpp ci bis boobu ñàkk lekk ñàkk naan ba nit ñi dog mu yéene ànd ak ñoom nag te xam ne bis boobu dana ko fay ala kulli xaalin ndax wooru ko ndax yéene wutoon kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci doon addu su ko defee kon lu ci jub ci yàlla la lu ci dëgg ci ñin la in uridu ilal islam mastatatu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu numéro baa ngi noonu ba tey su fekkee am gen question defal 77 998 73 02 imam Mouhamadul Bachir Dramé su ko defee incha allah danañ ci àddu kam suñ dayu xam-xam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu